jërë ngeen jëf mbokk yi xaritu sunu people TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ñaan ngeen woy di abonné ci chaîne bi te bës cloche bi nga xamante ne moo leen di permettre ngeen di jot suñu ay notification di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di dikk ci xibaar bu tiis xibaar bu metti boo xamante ne mu ngi dal ci ki nga xamante ne moom moo di Wally Seck ndax nag bi ñu xëyee tey li ñu gis ki nga xamante ne moom moo di euh, Kiné Diouf Diaga ñu daal ñu koy tàggee moom nag décès bi léegi lañ koy doog jot gannaaw bi nga xamante ne xawoon na am ab bu ko xawoon sonal tuuti mu nekkoon foofu ca France bi nga xamante ne fa la doon fajoo te bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw gi rek matugul sax ñeenti weer ci li nga xamante ne moom moo di doomu doomam jooju di euh, Momy Dany Guèye génn àdduna mu métti lu ko woon lool mu nekkoon lu tiis ci moom waaye tey tam bi ñu xëyee li ñuy wax rek jàmm pexeem yàlla ak dogalam moom itamit ñu xëy jot li nga xamante ne moom moo di xibaar bu tiis bu métti bii nga xamante ne dal na ci kaw ki nga xamante ne moom moo di Waly Ballago Seck di doomam muy euh, génn àdduna kii di Kiné Diouf Diaga nekkoon nag soxna ki nga xamante ne moom moo di Thione Ballago Seck loolu nag mu nekk loo xamante ne euh, lu métti la lool lu tiis la waaye jamono yi ñu wax ak yéen euh, corps bi ma nga fa nga xamante ne moom moo di fa ca France euh, buñ ci amee ay leeral wala ay xibaar yoo xamante ne am nañ ko ci ci ñëwub koor bi daañu ci dikkaat yéen ci yenn xibaar yi nga xamante ne moo gën a leer di massawaat ki nga xamante ne moom moo di Wally Ballago sekk te di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla may xol muñ ndax lu metti la yàggul dara sa rak euh, sa mag génn àdduna ñu teg ci ay weer sa yaay génn àdduna loolu moom nit mënu ko yaale te du am lu ko lu ko tiis kon nag ñu ngi koy massa bu baax a baax à travers ma voix waa sunu people TV yëpp ñu ngi massaw waale Balago Seck di ko massaw di ko massaw jërë ngeen jëf leen di abonné